de Lampita. Toujours dans votre journal People, à la présentation, C'est Tange Tandian Moussa ñu Salou sur le canal 33 l'RL TV lu ñu def dara cette vidéo bi nga xamante ni mi ngi vous foofu cette vidéo. kon ñu ngi fii nii ci hôpital régional man imam Sow bokk ci première notabilité religieuse fii ci région Casamance euh, di kilifa diine ci réew mi euh, Ziguinchor bu ñu nee am na junne imam neuf yi suma bàyyi moo leen jàngal tey ñu ngi nii xale boo xam ne violence lay woote ak jikko bandi ñu koy wax Ousmane Sonko baayom ñëpp xam lu mu liggéey ci dëkk bi ak yaayom mu yónni ay xale ñu ñëw ci kër diine ñu fekk fa jigéen boo xam ne jigéen la buy dëkk bi yëpp respecté jël xeer birig bu rëy dóor ko ko ci kanam daw dem ndaw suma jigéen suma sœur suma mag mu xëm ci saasi si xale yi dégg yuuxu ñu daw heureusement ki ñu ki ko def mu daw rëcc te buñ ko jàppoon nañ ko rey balay autorité yi di egsi homme de loi ñaaw na ñaaw téef boo xam ne ñu ngi lancé appel nag képp kuy kilifa diine ci dëkk bi ñu xam ni Ousmane Sonko moo def lii ci kaw ci kër lan ku ñuy wax Serigne Aboubacar Sow ki samp première daara ak école arabe ci Casamance jàngal lu ëpp ci élimaanu région bi yépp ak réew mi Ousmane Sonko moo liggéey liggéey bu ñaaw boobu yónni ay ndawam ñu ñëw di xaañ jigéen ci biir kër Boubacar Sow muy kilifa diine bu gën a mag ci Casamance ñaawteef boobu nag man imaam Alaaji Baaba maa ngi koy avertir billaahi wal kitaabi bu ñaaree ñu suul ko moom ci nu mu gën a gaawee man du ma moroomam xam naa kuy baayom xam naa kuy yaayom te bu ma neexee tey yaayom du fanaan këram kon Ousmane Sonko na nga am yar ak teggin dëkk bi moomoo ko dëkk bi doo fi tus ki nga agressé baayom lu mu fi liggéey sa baay liggéeyu ko fi sa yaay liggéeyu ko fi te boo ko laajee magu dëkk bi ñu wax la ko dëkk bi du pour dëkku xeex ak fitna dañu woote ci jàmm ak salaam ku mun wote mu dem wote ci jàmm ak salaam mais kuñ fi agressé ci man suma famille bu fa duggee billahi wal kitaab bi buñ la géewalee di nga faatu ci 48 heures kon ñu ngi lay avertir li nga def nii na ko tuub nu mu gën a gaawee lii mooy suñu kaddu ñu ngi nii hôpital nag te nga ñaan yàlla mu am jàmm parce que bu ci leneen raxee billahi di nga ko rëccu avertir naa nag képp kuy sëriñ ci Casamance ñu xam ni tooñ taxaw na te ñun kenn du ñu tooñ wasalaamualeykum wa kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni imam boobu nekk chez Ziguinchor moo ko wax ci leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko bi nga xamante ni mi ngi soog a jël mairie Ziguinchor ci loxo Abdoulaye Balde violence bu mu njëkk def yónni ay nit ñu fekk ci biir këram ndaw si ñu dóor ko ba noppi daw kon duma ci commentaire yéen askan bi lay bàyyi ngeen commentaire seen bopp toujours comme ni ma leen koy waxee foofu ci mairie Ziguinchor ñu ci bëri jokkoon nañoo ak man nee nañu journal People mooy journal

tant